من ظن غير الله يغني أو mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ngir ngeen mën a am ay xibaar yu sell bàyyi ko ci dëkk bu tedd bii di Touba ak li ko wër ak mbooleem àdduna bi wër nga képp leen ci seen seen Texcom TV Bamba Texcom TV Bamba chaîne bu wóor ànd ak xibaar yu sell. ci bàyyi mais gën jiyante bi gën amul tëre du amul dégg ñëpp a maase xam Moustapha gën te moom la doon liggéeyal te mbokkam bàyyee ma waaye ba mu koy liggéeyal ak bokk la doon dundal waaye woon moo tax ba mu ba si njol makk bëgg a dugal ndax moom ak bokk la doon dundal waaye dundal woon maanaam ndigal suñu borom màggalul woon yàlla ci la mu doon def waaye bokk rek doon sama doom bi mbokk koy taxaw te lu baax lu ne def na ko waaye fasut woon yàlla moo tax bañ ci bëgg a dugal yàlla yàlla nanguwut te yent bi da ko defal leen kon nag bu ñu ne sëriñ bi baax na rek ba jàpp ne baaxam gi day yóbba yóbbaale de kon dañuy weddi alxuraan te alxuraan moom du tuxu mënut a soppi ko moo ne at addina moo ne at alaxira sëñ mooy saab téere mooy sama diine du ma ko génn du ma wut ak yonent bi axsamtu billahi inni li ne bi abadan xillun wa hibun wa ma abaxu yabaaw ne lu yonent bëgg moom laa bëgg lum bañ moom laa bañ dellu wax ne salaatu sitta bi mat sitta taati bati ma at si ay damay julli ci moom di ko tagg juróom-benn weer at juróom juróom-benn weer at juróom weer yi ca des at muy julleeg tagg waaye ànd ak nag di ko rey ma at si du ma wuteeg moom du ma wuteeg rasulullaay dem ba àgg ci ni génn bëgg laa am mooy yonent bi nabiyuna Moustapha xarit a xarit bi fi kulli sayin wa maa yaba abaaw Sëriñ Tuubaa nee na mboolem li yàlla amul lu mu a doon suñ ko defoon ci benn barab bi nag ana loo bëgg ne genn xemam te mooy Moustapha rek alayhi salaatu wasalaam xarit yi fi kulli sa in moom dong dong la ak xemam ci li yàlla amal soxlawu ma leneen kon nag alxuraan ngoog yonent baa ngoog guddi gaa ngoog sëñ bi mat na de waaye nu nit nañ fexee roy ci moom te bañ a naagu bañ a topp suñu bakkan bañ a topp addina ak xubu-xubu yi nga xam ne jëmut fen teguwul ci dëgg teguwul ci ak jub ñu moytu ko ndax kat waa ji ba mu dajeeg sëñ Fallu Mbàkke sàkku ci moom mu yóbbaale ko mu ne ko yéegal ndem ba yàgg ma ne Mbàkke nii rek ngeen ñuy defal fu fekk yóbbu mu ne nii rek nañ fekk ci kaw yoon wi nañ leen fekk ci kaw yooyu waaw sëñ Tuubaa sëñ Blaat waxoon na ni sëñ Tuubaa aw doxee mooy ku dem ma dem ku dimut ma dem kuy dox ku dem ma dem ku dimut dem ku nag boo geesoo da seen mbooloo ci sa ginnaaw nee na nag yoon yu mu jaar mom Serigne Touba sëñ bi la Cheikh abdallah mon ko don wax mon ne yoonu Serigne Touba jaar nak ku ta jaar boko jito bu la dabee dimbali la bok bu fekke mu dimbali la way ku wacc yoon mom ben mu jitu la nga dab ko wala yow nga jitu ko mu dab la mba mu dem nga fek ko fa lu ci mën am nak ne mom tank wacc yoon rek di nga am dimbali Serigne Touba way sa ba wacc yoon nak nag mën ngeen a te ku lu gisul mënul ci yow dara yoon wi nag mooy siraatal mustaqim du yaari yoon wenn képp la mooy siraatal mustaqim nañ ko bàyyi xel fu mën a nekk nan sax ci ak jaamu yàlla fi muy daaneel sama kàddu nag lu gàtt la fi laay daaneel sama kàddu suñ borom ba waxee yonent bi ci téere bii ni ko wa maa xaratul jinni wal insi ilaa liya'buduun bindu ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma ñu nga xam ne dañuy wax ci làmmiñu wolof bi bi ñu gëmee yàlla gëm yonent bi téere bi agsi ci ñoom ñu gis loolu ñoom dañ koy def muy seen dund ci nan ku jëkkee sa moroom danga koy wax baat baat yonent bi ne jullit ñi nañ koy nuyoo mooy asalaam asalaamaaleykum mu jàmm mun ne wa aleykum salaam loo cay teg nga ne ko mbaa jaamu yàlla nga fanaane ndax moo tax yàlla binduñu te moo tax mu ënnu fi mos naa dégg si Saliou Mbacke ne maa ngi fàtt sama bopp dinañ fàtt li li tax yàlla bind ñu te tax mu ëllëg te mu bàyyi nu fi mooy jaamu ko rek sëñ sëñ Saliou Mbacke waxoon nanu ko mu ne ko jaamu yàlla rek waaye nag dañuy asaf mbaa jaam mbaa jaamu jaamu nga fa ñi xam lañ naan jàmm waaye wax ba du jàmm de jaamu yàlla mooy jàmm ku jaamut yàlla mënut am jàmm ne ko mbaa jaamu yàlla nga fànaan mu ne ko jaamu yàlla rek mu ne alhamdulilah rabbi alamin sikam yow nong ci li tax yalla bindu nong ci mu ne ko baarakallahu yow mi koy soññe ak diko yalla yalla barkel la ku fi gont sa morom niko assalamu alaykum wa alaykum salam ngane ko mba jaamu yalla nga yendo way dang koy asaf mba jaamu nga yendo munu jaamu rek munu ne sikam nong ci li tax yalla bindu alhamdulilah mu ne ko baarakallahu yal la yow mi koy soññee ci lañuy dund ba ka dañuy dee ñuy fàttalente li kon nak nu ñep nañ ko japp te xamne mo moo moo fi andi mo ñu fi ba te ci la ñu laaj su ëllëgee asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. sëriñ bi dani jarul may tudd tur ndax yàlla xam na yonente bi xam na moom mi xam na nee na li fi daje ci ay tranga bàyyi ko ci gox yu fasanti ko ci gox yépp nag bari na ba yéem ko lool te ñu baree bari daa mel ni sax mbir moom a gan la ci ñoom waaye baaxoo wuñ woon di ko def waaye mi ngi leen di xamal ne liggéey Sëriñ Tuubaa de lu ci waaye def ren su demee ne nga gën koo man nee na képp koo xam ne indi nga teraanga tudd na Mbuur tudd na Thiès tudd na tuubaa tudd na yeneen gox am na ñu mu waaye nee du tudd tur waaye kenn ku nekk ba ngay jóg am sa pas-pas jël sa wërsëg di fàggu say xéewal fas ko yéene indi ci bis bi xam nga yàlla xam na la nga façon yàlla nga ko déyaaleeloon nee na moom mi ngeen ko jaarale ci moom nag teg na ci bëtam waaye mi ngi dëgërloo loolu suñu borom wax ni lépp loo def ci man dinaa ko ful ngeen bàyyi loolu xel te xam ne lu ci waaye def ren insha allahu taala déwén la koy gën a man may ma waaw dinaa la ko may euh, soxna yu tedd yu baax yi nga xam ni ay kilifa lañ tàmbalee ci soxna maam Bousso ñenn ñi di way jur tàmbalee ci soxna ndaay ma muy seen soxna Binta Njaay ñoom mi nga xam ni yàlla dogal na ay dëkkaale lañu ak ñi ñu dendal ñépp ak ñi seen ginnaaw ñëpp ak ñi ñu àndal ñëpp sëriñ bi naan na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi len di ñaanal sun borom yokku len te dëgëral len kenn ku nek li sey yene yalla nang yalla nang ci tek sa beut tek sa loxo sa bu ma waxee rek dina jall sang bi ñi waxtaan ci ngon soxna señ Sonia bu da aksi di doomi sëriñ Abibu mbak bok ak mom lepp fekk ma ci digg waxtaan ñu man ko yow nag yaa de sa jotaay bi waye nak sant yalla le warna ndax soxna Binta Njaay de ak soxna Binta Mbàkke yàlla suñu moom doole yërmandeem ba ñuy ñëw man mii dox naa ba say tànk métti ñoom ñii fu ne dugg nañ fi te booba sëñ baa ngi fi kon tey nag buñ toogee lii mën a am te kenn yëgut ndimbal a fi ne te ndimbali yàllaa ci jiitu kon loolu loolu seede jëf ju rafet ju neex ñëpp ñu li ma waxoon rek koo xam jëf ju baax neex na rek loolu na la waaye ndimbal nag am na ci ko taxa akub taxawaay loolu nag yàlla na jëm kanam ci njaboot gépp yàlla na ngeen dund ba fekkee njariñ njaboot gépp ci barke Sëñ Tuubaa seen liggéey yàlla bu mu leen loolu sëñ bi noonu nañ ko jottali te tëjee ko euh, sëñ Modou Xabaan a ngi nii toog bu liggéey bi matee sëñ bi dañuy ñaanal dellu ci biir nde guddik tay moom du kenn ko ñuy may muy tëdd yi nelaw ndax sëriñ Saliou Mbacke moo ne woon guddi gàmm day yemale ko guddi ga ko jiitu ak guddi ga ca topp dara jaru ko ci te ñun ñëpp nag ay jullit lañu kon tey moom mayuñu kenn ndigalu nelaw moom kuñ fekkoon ñu nelaw sax buñ la mënee yee dañ lay yee waaye nag faw ñu bàyyi sañu mu dellu ci biir nekkal nu ci biir nu nekkal ko fii ci tànt bi di dundal guddi gi ba sama set ñu dajewaat ci ëtt ba mottali waxtaan bi xanaa ñu gën a jotal kàddu yi rek ne sëriñ bi ak mbooleem rakkam yi yëpp wax nga leen ñi gën a sargaalaka jaajëfal sunu mag ñu jigéen ñi nga xam ni ku mel ni soxna Faati Mbàkke ak soxna Maam Buso ngir jàpp gi nga xam ne jàpp nañ ko ci bis bi gis fi tamit sunu soxna yu tedd yi di sunuy sëriñ ku mel ni soxna Binta Njaay ak soxna Faati Mbàkke ak waa kër sëriñ Abdourahim ñëpp waaye ñuy sant sëriñ bi ndax dafa toog ci toogaayub Cheikh Abdourahman di jëwriñam yoo xam ne daa fas yéene liggéeyal Cheikh Abdourahman liggéey boobu nag mu ngi ciy def kemtulaayal kàttanam sëñ Tamsir léegi la ñëw ni daa bëgg a jox ndigal ngir ñu laaj addiye yoo xam ne dafay jëm ci jumaa ji ma ko déedéet li tax ma ne ko déedéet mooy sëriñ bi ci boppam moo joxeegul ndigal ngir ñuy wax ci jumaa ji di ci laaj dañu woon daa bëgg bala ci kenn am jot jot ñi ko séqal te bokk ak ñoom Cheikh Abdourahman lu néew néew rekk ñu dajeek benn jotaay waxtaan ci ngir ñu xam ne lépp ñun ñoo ko bokk lu jiitu loolu nag moom booy soññee ci mbir danga nga caa war jiitu moo tax ku ne xam ne ni sëriñ bi jël na alalam kemtulaayal kàttanam jiital ko ci liggéey bi ndax li ñu mool fii ci diggante plein kërë urd jàpp naa ne buñ ko defee ci liggéey bi dina ci sori lool waaye teewul mu ni duma def dara te waxtaanu maag ñi ma séqal Seex Abdourahmane waaye mu mel ni sëriñ bi dañu ëmbal yërmëne jo xamni yërmëne yërmande ju yaatu la ba tax na lu bari dina koy def sax ta du ko bëgg wax kenn ndax day japp ni bu la ko waxé rek nga téggo ci lo xamni day xawa a dis ci yow. kër gi bari na lég lég mu song fi dara di def mo xam tabax la wala dara kenn du ko yegg da ngay jékki-jékki rek xey gis maçon bi ñëw di liggéey. waaye taxaw gi mu taxaw ci dëkk bii ba dëkk bi am courant te courant bi mu am du courant faux courant vere la am sëriñ bi ci intellectuel am leen yàlla da koo dimbali ni ma xamee sariha ak xaqiha noonu tamit la xamee mbindum jargoñ nee naa leen sëriñ bi bokkut ak man boo fi duggee ci dëkk bi Eh, li ñu xamoon mooy ay bekkti bëtëreeg ah ak i yooyu léegi nag bu ñu nee courant ba dikk na te xamoo nu courant courant bi da nga courant moom courant rek la fekk na sëñ bi moom xam na courant original ak courant courantu waaw mu dindi courantu nak indil ñu courant original kon serigne bi yalla na fi yag teur ku bëgg da yomb ba nax di nit lu mu bëgg lu ne ci lañ koy nax manam ñi nga xam ñoo bëggoon courantu bi manam ñoñu du dara du seen degeur bop du lenn du ñak xam du deet dañoo bëgg bëgg la rek nit ku ne lam bëgg lam bëgg ci lañ koy nax kon ñi nga sant serigne bi bu baax loolu yépp ci mbaaxam rek la yàlla da koo booleeg ay nit ñu baax ci tund wi mu nekk ak ñoom ñi ay responsable te ku wal mburu tuddub dëkk dafa am benn responsable ñu koy wax monsieur maire Mamadou Thiaw doon ku baax ko xamni ni lu serigne bi bëgg rek mom la bëgg lu serigne bi bëggul bëgg ko bu ko defé kon ngeen xamni ni bi yittem yépp moy xabbaan jëm ci kanam gis ngeen dëkk bi yéen ngi sàggan de waaye dinañ dem ba mujju gis nga am fi kër dina jafé ji dé barké serigne touba am fi kër dina jafé barké cheikh mbé wax li am fi kër dina jafé ji dé xam naa nag di ngeen ngeen xamu leen ko ndax ah, nit nit ku ñuul suñ boroom a dogal ci moom mu ñàkk vision waaw gis-gis seen gis-gis moo soriwul waaye dëkk bii nañ ko fonk ku fi mën a am kër wut ko wat naa ko ci yàlla kër dina fi jafe ji waaw ndax sëriñ bi ci boppam yërmande ji mu ëmbal waa dëkk bi ak lim leen yéene ak ni ma ko xamee ak li muy fàggu di ko toppatoo ngir mu jëm si ki dëkk bi ma ne bu jëmee bu agsee ci dëkk bi dëkk bay dàq kees waaw day neex lool waaw te nag noonu la xale yi mel ñoom ñëpp dañoo bëgg dëkk bi waaw am na xale yoo xam ni léeg-léeg ñu ma ni ma dañoo bëgg def ci dëkk bi kànka yëri ma ne ko loolu ma ni loolu baax na de day doxal dëkk kanka yeri ku bëgg tabax rek légui jëratul ngay dem ay tassé tek kees da ngay dox ndank dem ci kanka yeri bi ñu jaay la nga liggéey loolu baxna dé am na ham xam ne ma dañoo bëgg ñoom itam def fi pour mburu bu ñuy laké mburu mais lolu kat bu ngeen ko di ngeen dina tax ñu am ay dekkandoy séréer kat ah ah loolu loolu loolu bu fi amee boo moytuwul ñu bari ay tuxiyaani séréer séréer si duñ tuxu nga yaakaar ñi ngi sant sëriñ bi bu baax ci yaatam ak bëgg doomu aadama ku ne xam na ni ñun dey xam sëriñ bi ak yéeneem ci dëkk bi moo tax ñu di ko jàppale di dox di ànd ak moom ci liggéey bi ndax ku ne xam na ni ñun moom bariwuñ jot googu ndax kën soro amaan géem a jege lu mel nii laa fa bàyyi te sëriñ bi moo tax ma ni leen daa am lu sëñ ma ndumbe waxoon ne woon na ab taalibe kat ñett ñi moom ñoo bokk melokaan mooy murit ak militaire ak malaayika ndigal rek fu ñu nekk ndigal doo nga leen fa bàyyi te suñ kilifa dañoo jox ndigal sëriñ bi ku ne xam na ni ñëw gi muy ñëw ci baas bi nii di fi toog rek bëgg lu ñu neex la waaye fii rek la koy defe de ku ko mën a gis itam bala nga am ko fii nga ko ame kon sëñ bi fonk na leen de fonk na dëkk bi kon ñu ngi sant ñépp góor ak jigéen mag ak ndaw te di ko ñaanal bu baax yàlla wéral ko yàlla yàggal ko ak njabootuk Seex Abdourahmane gépp góor ak jigéen mag ak ndaw ndax ñun ki ñu am day kenn moom Seex Abdourahmane moom Seex Abdourahmane day kenn ci kër sëñ Manumbe ndax ku ne xam na ni li sëñ ma Manumbe am lépp ba sëñ Moussa Kadi way njabootug Cheikh Ahmadou Ndumbe bay ba dem ci waajuru Cheikh Abdourahman soxna Astu Njaay dañ ni ko yaa Astu Njaay miñ wa yaa umm na yaa Astu Njaay miñ ni yaay ki muñ te man ñëpp te ci liggéey la wax ok ah jox ana lu gën a kawe loolu waaye yaa umu naa bu ko arab waxee mooy lan yow yow mii sunu ndey ok miñ ni yaay ki man ñëpp ab liggéey miñ ni yaay ki man ñëpp ab liggéey wax joju dafa yaatu ba day genn sax keur Cheikh Mandoumbe dem ci ñeneen bu ñu won ya man ñepp ci keur gi day yam ci keur gi waye yaay ya, ki man ñepp ab liggey koku da genn keur ga ak muñ muñ ni mu ni muñ ni mu jafé ci jigéen ñi nga xam jigéen ñi kenn muñ mom jafe na leen ha jigéen ñi muñ rek ka leen jafe soxna astu njaay muñ soxna astu njaay dama toog ak soxna mati kan mi nga xamanteni doomu sëñ ma xaadi kan la sëñ ma xaali kan mom ci keur cheikh ma ndumbe la ndax wajuram ci bir keur cheikh ma ndumbe ko am muni sen wajur sëñ Abdourahmane soxna Asti Ndiaye sëñ Mandumbe dafa wutoon ay carré xaw ma luy carré nag ci mag ñi xam naa xeeti armoire la daal ka carré xaw ma carré da xeetu carré la wax carré wala boog moom sëñ Abdou booba mi ngi toll ci parental maanaam la sëñ Mandumbe wutoon moom carré la ko tuddoon nee na sëñ Mandumbe defal ko ñëpp seeni i néeg waaye defalu ko yaayam nag nee na bu sëñ Abdourahman ñëwee ba ki sëñ Mandumbe ni ko wutalal sama yaay kaare wutalal sama yaay kaare sëñ Mandumbe ni ko Abdou demal sa yaay am na kaare yu bëri <laughs> Abdou demal sa yaay am na kaare yu bëri moo tax boo demoon ci euh, boo demoon ci néegu sëñ Abdourahman doomam yi koo fa fekk ñu bëggub sañse lañ waaye ñu bëgg lu moderne lañ ko dem néegam da nga fay fekk mu yor ngandab lal double mat laa da ngay fekk mu am ngandab ar armoire ma ni daa mel ni lii carré sëñ ma ndumbee dé si da mel carré sëñ dé nga gis sëñ abibdu sëñ abibu mi dim ni yalla barkele ab liggéeyam nga gis njabotuk bopam gi nga gis ni tay taxna na di tudd sëñ Mandoumbe ha ah? te ma Mamor kat euh, Yalla da ko defal mu am xewal ci sëñ señ ma Mamor mom señ Abibu dafa am xewal ci sëñ Mandoumbe waye dafa jëlat tir bi joxat ko sëñ Mandoumbe man buma ma dee lu yam lay maye man mom sama maye du yesu ab basiru wala ñaari basiru waaw bu ko uppé tout la koy upp waaye mom téméri basiru lay maye moo tax may ku né di nga salit té jabatu señ ma lumbe rek waaw kon té xolal ñun kër gi kër señ ma eh, señ ma ndumbe sëñ abdourahman njabootu bopam gi limu jur lepp do ci gis kenn di xeeb kër seigne yalla deful sunu kër gi am abrastaman yoy yor dumbul yi ñaaw ba dee sol seen xottite amul sunu kër loolu du fag tek njabotam mo ñeppay jaxaso si seigne abdourahman dama ni. Nyong ñëppay jaxaso waye gis doomi sing Abdourahman ju silwi joo xamni silwi sawul yombul amul de ah ko ci gis gune dafa am jom lo ci gis kuy taxawal mu loolu ndimbalu yalla la waye mu fagul len lo xamni ñun ñi mu jur bam ko don wax da dañuy retane sëñ Abdourahman bi mu toge fi nan ma ngi ay milliards ñun doomi yi ko di Ah. waye tay lam ñu bàyyee ñun ñi ñëpp ku ne xam na ni mo upp ay milliards ndax bob ba tay ñang koy séddoo te jeex kon koku liggéeyam dafa barkel mom Cheikh abdourahman daana wax ni man duma khalifah, khalifah khandor la am deet Cheikh abdourahman dana wax ni man khalifa khandor la te ko am cër nak ci yalla la waaw Cheikh abdourahman ko am cër ci yalla la xam nga nak da bok ci la nga wo nit ñi bañu ñew ngay wax ak ñom ci sa bay dug ñu teka wor na yalla bu fekkone wax ci sa bay ak kon ci sama bay kep la yam waaye dug nite mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ngir ngeen mën a am ay xibaar yu sell bàyyi ko ci dëkk bu tedd bii di Touba ak li ko wër ak mbooleem àdduna bi wërngal képp abonné leen ci seen chaîne Texcom TV Bamba Bamba chaîne bu wóor ànd ak xibaar yu sell